noonu laa gisee politique bëgg sa réew mais pas leneen alors c'est soi-disant ñooñu ànd ak Aminata Touré yi nga xam ni sans Aminata Touré ñoom duñu dara ku ci nekk yi wut tur